Moustapha Cissé Lo yaa ngi dégg coow li waaw. Euh, xam nga man lu su ma nekkul nag su ma nekku ci. Mhm. du ma tudd ku ma tuddul sama nekku ci. waaw man man politique lañ nekk tamit. mais mais non man euh, même bu ñu nekkee ci politique moom déedéet man nag ci politique moom. Hmm. li su ma yoon nekkul. Hmm. ah li ma ci wax bariwul. waaw surtout yu demee nii nga xam ne dafa viser ay nit. Hmm. Euh, kooku ma dama ci maandu daal. d'accord waaw ndax. Euh, sujet yi ñu ci yëkkati ma ci maîtrise te jomb naa wax lu ma révélation yi sax yow. révélation révélation yi ñuy wax si wàllum building administratif non yo yëpp ay waxu euh, Moustapha Cissé Lo la. Hmm. Euh, ñam ko hmm. ils sont suffisamment bien armés et outillés pour lui apporter la réplique qu'il faut la réplique qui sied. jàppoon ne war nañ ko déglu kan Mom, dëgg mom Moustapha Cissé ñu déglu bu baax lu muy wax. kan moo ko wax dëgg. citoyen même. non ma ne xam nga xam nga citoyen yi mom hmm. euh tu ñu ubbi seen radio rajo seen nopp déglu. waaye fañ ko wara a du foofu fañ ko wara a moy mooy mu dem justice li muy wax mu wax ko justice justice entendre ko ñu def enquête xol ndax li wax amna wala amul. donc japp nga dal war nañ ci ubbi ben ah oui oui le procureur de la république aurait dû s'auto saisir si affaire boobu. lépp saaga yeeg lépp rek xam nga réew ci normalité la war a doxee benn citoyen amul droit. di jël euh, euh, média actuel di di saaga ndey. di di wax wax yu ñaaw di tam dëmm kii di tam dëmm kële. kenn amul droit def loolu. parce que ndey kenn gënul ndeyu ki ci des. ku ci ne dafa am ndey. mais ça saa di peut dafa am lu mu doon wax peut-être saaga yi nu ko waxee mais mais mais dafa am lu mu bëgg a wax. ma ne. Euh, man loolu mënuma ko défendre ma daal hmm. jàpp naa ne euh, ay surtout ñoo xam ne ñooy ànd hmm. du ñu yeddante ci ay rajo ay télé wala par média interposé jàpp naa ne boo amee loo ko wax ki ngay àndaloon démb ngeen ngeen defandoo ngeen lu nekk hmm. euh, da ngeen di invité wante moo xam ngeen daje restaurant moo xam fu ngeen mën da daje ngeen toog ngeen waxtaan moo gën ngay dem ci rajo wala télé

ma d'accord ma ci loolu nit lu mu lu mu wax bind ko buñ ko wooyee war naa indi su preuve bi